asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu man la docteur Ousmane Gueye maa ngi leen nuyu baax leen ziar di ñaan yàlla mu jële ci Sénégal mbas mi te jële ko ci àdduna bi yépp di bëggoon andi waxtaan jëmale ko ci wàllu laaj yu ñuy faral di laaj mooy variant delta ndax day feebar bu bees déedéet du feebar bu bees feebaru coronavirus bi fi amoon la naka jekk diggante daaw ren waaye dafa soppiku. dafa soppiku am beneen melokaan loolu moo waral nag melokaan boobu mu soppeeku mu am moo tax ñu naan ko variant lu lu changé delta itam lettre la aw araf la comme bu ñu nee boobu mooy delta kon bu ñu nee variant delta mooy coronavirus dafa am beneen façon melokaan bu tax ñu tuddee ko forme D beneen laaj bi mooy lu tax nit di ñàkk ba noppi ñàkk corona. ba noppi wëlbatikuwaat rek am corona te moonte ñàkk yi fi daan am ñu xamoon leen di euh, feebar bu sëqat bu wan bi tuberculose njàmmutaan xureet ngas payis jàddaaral lafañ yooyu yëpp bu ñu ko daan ñàkku dafa daan aar nit ñi bu baax a baax li ko waral mooy ñàkk yooyu jamono ñu ko daan def te moom nañu def ba léegi tax sax dañ koy defal ñoo xam ne ñu ngi seen jàmm ak salaam ñu benn jafe-jafe ku ci daan bëgg a ñàkk sax bu sooyam tàng sax ñaan xaaral ba tane moo waral ab liir juddu ngeen teguñ sax ñu daan ko ñàkk jàng ñàkk ngir aar ci jàngoro yi tuberculose muy sëqat bu bon bi waaye bii nag dafa fekk feebar am ba noppi ñu bëgg nag ci biir feebar nag këstu am ñàkk ngir aar ñi nga xam ne dalagu kon ci misaal dafay mel ne ku nekk ci biir guerre jël ay ndaw bëgg leen a ci saa si def leen ay soldat bokkul ak ki nga xam ne jàmm ak salaam moo am comme ni amee Sénégal yàlla na law yàlla na sax ñu jël suñu soldat di leen entraîner ndànk-ndànk di leen toppatoo ba ñu xariñ kon day woote ki nga xam ne dafa nekk ci guerre bëgg jël ay ndaw nag def leen ay soldat loolu mooy li ñu daal ci jàngoro yi corona ji suñ koy méngalee jàngoro yeneen feebar yi nga xam ne dañu ko daan ñàkku ci biir loolu nag di fàttali ne jàngoro ji la ñuy miinal saw yaram xamal ko ko ngir mu mën a liggéey ngànnaay yoo xam ne bu ëllëgee bu ci duggee dana mën a jàkkaarloo moom kon loolu mooy li nga xam ne moo di ñàkk bu loolu kon nit ki nga xam ne ñàkku na mën naa am bis bi mu ñàkkoo sax ci la jëlee jàngoro ji maanaam fi mu toogoon di ñàkku dox ci di ñibbi mën naa am taseeg ko jàngoro ji mën na ko wàll ci démb sax mën na ko wàll sax ci suba sa kon yaram man amagul temps wu liggéey soldat yu doy ngir mën a jàkkaarloo jàngoro ji ginnaaw doyagul nag su boobaa mën naa def feebaru corona waaye mën na woyof ci moom ndax am ay soldat yu néew moo gën ñàkk ay soldat moo tax ñu ne kiy ñàkku mu ëpp chance ki ñëkkuwul pour bañ a àgg ci cas grave ndax dana fekk tuuti soldat yi mën a jàkkaarloo jàngoor yi xeex ak moom bu loolu jàllee ñu bëggoon ñëw indiwaat tuuti waxtaan jëmale ci wàllu masque dañoo gis ci wàllu jëfandikoo ñoo noo xam ne daal yaakaar naa jar nañu andiwaat ci am njàngat xam nga masque boo koy sol danga war a téye ci ñaari langet yi nii ñaari corde nga xëcc ko ba mu jàkkaarloog sa gémmiñ ak sa bakkan nga takk ko ci sa ginnaaw nopp nga lonk ko parce que yaatal ba mu muur bakkan bi ak gémmiñ gi bu baax a baax bu yàlla dëgg dogalee nga war koo dindi ndax aajo war ngaa lekk war ngaa naan wala comme suñu mbokki war def conférence de presse wala point de presse soxla dindi ngir jàkkaarloo micro yi wala bëgg nañ daal seen xar kanam feeñ wala dañuy am jafe-jafe wax ak masque ginnaaw ba distance amee seen diggante ña ñuy waxal su boobaa suñ koy summi dañoo war a jël seen ñaari baaraam lonk ko ci langet yi summi ko ndànk def nii su boobaa nag mën ngaa boole sa ñaari langet yi téye téye sa micro def sa conférence de presse wala sax boo defee nii fi nga xam ne fi la buum yi sax boo xëccee tuuti mu tampaloo nga téye ko lem ko nii li ma lema woon ci bakkan bi nga xam ne lii lépp bit la nekk nga bu la neexee nga jël ko sax roof sa poos nii bàyyi langet bi lang su boobaa nag poos bi doo ci defati dara dul rek lu jëm ci wàllu def sa masque boo demee ba nga xam ne léegi soxla nga ko nga rocc ko nii ndànk daal di jël ñaar langet yi boo xëccee tuuti daal di koy sol lonk ko na ko lank war boo soxlaa dindiwaat def nii daal dindi ndax dañoo gis ñoo xam ne dañuy sol masque bi bu ñu waree wax jékki-jékki rek dindi benn nopp bi téye ko nii ni ko nikk daal di dindi boo ko defee sa loxo mu ngi ci biir masque bi kon su fekkee yàlla dogaloon sa jàngoro nekk jàngoro ji nekk sa loxo da ngay wàll masque bi su boobaa te loolu kon risque la kon fexe ba biir gi daal sa loxo du ko laal dara du ko laal ndax mooy laal sa gémmiñ mooy laal sa bakkan da ciy am solo loolu. beneen waxtaan bu mujj bi mooy li ñuy jëfandikoo gel xam nga booy xeex dara. ñu mel ne nit ku jaan bett ngay xeex moom danga koy rey ba mu dee waaye soo ko dóoree tuuti bàyyi ko fa bala jekkoo nga dee antibiotique bi ñuy naan sax bu ñu la ko joxee ne la naan ko danga ko war naan ba mu jeex takk nañ la ko waxee ndax soo commencé rey jàngoro ba ci digg bi nga bàyyi ko dafay gën a am doole dafay miin dañu gis ne kon jumtukaay yi jëfandikoo ngir rey microbe ci suñuy loxo léeg-léeg ni ñu koy jëfandikoo dafay des muy solution hydroalcoolique bi nga xam ne ndox la muy spray bi comme bii nga xam ne pompe la boo pompe gis nga ko muy gel bi nga xam dafay mel ne laalo bu mu ci mën a doon soo koy jëfandiku dañ ko war def ci loxo yoo xam dafa set wecc doo gis gis ci doo xool gis ci benn salte dañ na il faut l'utiliser sur des mains visiblement propres kon bu aw desu ñam nekkee sa loxo wala huile ci mécanicien bi par exemple wala ciment ca maçon ba wala lu ci mën a rek dangaa war dem raxasu ji boo xoolee nag sa loxo gis nga ne gisoo ci benn jàngoro nit nuyu woon la wala nga laal poignée porte foo xam ne daal boo fa laal ragal nga ne mën nga ko faa jële waaye soo xoolee doo gis dara su boobaa ci nga war a jëfandikoo gel yi wala solution hydroalcoolique ana noo koy defee dangay jël gel bi nga def ko si digg loxo def ci lu doy su boobaa dañu ne na nga ko frotté ba mat ñaar fukki seconde maanaam wàññi benn wàññi bu ba man ñaar fukk wala nga tari sootu faatiha tari xul wallaahu ahad boo def jullit su matee rek mën na jàpp ne veille mat na ni ñu koy defee ne mooy da ngay forot si ñaar loxo ci biir pour que biir gi nga forot ko ba mu tooy nga jël ko ci bitti ba mu tooy nga def ko ci ñaar loxo yëpp frotte diggante baaraam yi ngir lépp lu nekk diggante baaraam yi di microbe man mën koo rey di fàttali ne jeunes yi dafay rey microbe yëpp kon day aar sax ci yeneen jàngoro yi nga daal jël baaraamu dëy kii baaraamu dëy bi ndax moom li muy liggéey daa bari def ko ñaar yëpp bank say loxo daal di ba say baaraam tolloo nga teg ko ci digg beneen loxo bi fomp ko ci bu baax a baax ndax day tax mu rey microbe yi nekk ci suuf wee yi kon loolu dafay laaj kon nit ñi tam di dagg seen wee ba mu xaw a gàtt am na ci solo ngir mën a mucc ci jàngoro donc sol soo ko defee rek da gis sa loxo di daal di wow buy mat vingt secondes doo ci gis lenn tooy su boobaa mën nañ rafet njort ne amatul benn jàngoro du virus képp waaye bactéries ak yeneen xeetu yooyu yëpp dafay daal di dee loolu nag pour bañ a koo jaawale mees na ko nii na biir gi fompal biir bu baax fomp bitt gi bu baax na diggante baaraam yi daal noo mën a def na nga ko frotte bu baax waaw sa baaraamu dëy na nga ko fonk ndax ñu muy liggéey daa bari ñu def pousse nga bëgg say loxo fexe ba wey fi mu nekk mu set bu la neexee nag nga yem foofu bu la neexee nag nga jàll nag ci poignée yi nii tikk jare yi waaw boo ko defee ndax ban na ñoo xam tey jii dañuy nuyoo di nuyoo nii ci jamonoy corona ji nii kon fii dara mën na fi des kon frottiku boobu sax la ci am solo maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla mu jëlee fi mbas mi ñu boole ñaan suñu borom ak jëfandikoo ndigal yàlla yi mooy dañ diglu docteur yi jëfandikoo sabab yi te di ko ñaan moom mi nga mooy teg di tege jërë ngeen jëf